sargal waaye tamit di leen jaajëfal yéen ñi safoo di teewoo xibaari ci Equivox TV mbokk yi dal leen ak jàmm ñu koy jukkee rek tolluwaayu mbasum coronavirus tey ci àllarba bi ci 2040 tests ya nga xam ne rek amal nañ ko 211 ñoo ca jot a positif ci 211 yooyu nag ñu ci am rek 75 cas contact 136 cas communautaire 8 yoo xam ne rek jot nañ cee ñàkk seen bakkan ak 199 yoo xam ne faj nañ leen ba ñu wër. ñekk yi war a xeex mbasum coronavirus ginnaaw nag ba Sénégal jotee rek lu tolloog 200 000 doses vaccin chinois boobu ñu dippee rek Sinopharm daal dina sedd nag dëkk yi di gàmbi ak Guinée lu tolloog 10 pour cent ci 200000 doses yooyu li ni mel nag jëwriñ bi nga xam ne rek moom la ñu dénk wàlluma wër gi yaram moo ko daal di xamle di Abdoulaye Diouf Sarr division des investigations criminelles ginnaaw nag ba ñu tegee loxo rek ñetti activistes yi di Clédor seen Guy Marius Sagna ak Assane Diouf daal dinañ leen déglu rek nege ni démb ki nga xam ne nag moo di Clédor Sène mu ngay assumé rek la nga xam ne moom la wax ci boobule ojo waaye kii di Guy may Sagna moom àdduwul benn yoon ba ko ñooñu ba ko yooyu la enquêteur interrogé moom daal dafa préféré rek noppi bañ a àddu ci bile mbir ki nga xam ne nag moo di Assane Diouf rek mu ngay wone meram di xamle ne rek ba mu génnee prison ak léegi rek yàggul ñu koy dugal nag ci loo xam ne rek laalewu ci benn yoon militant Pastef yi di biram su Souleye Diop ak Abbas Fall daal dinañ leen a placé rek sous mandat de dépôt ndege ni démb ña nga xam ne nag ñoom la ñu jàppandoo woon rek muy Fatima Meng ak Patricia daal dinañ am liberté rek ndege ni démb ci fàttali nag militant yooyu rek ñu leen doon toppee rek li nga xam ne moo di diffusion de fausses nouvelles ñu àddu ci mbirum Ousmane Sonko ak Adji Sarr bu sukkandikoo nag ci avocat bi di maître El moom nag la mu xam ne rek moo di clientam boobu di aji Sarr dina janoo ak suba juge huitième cabinet bi ci 11h ngir rek àddu ci mbir moomu nga xam ne rek moom moo ko. boole ak leaderu Pastef bi di Ousmane Sonko. ba tey rek ci mbirum Ousmane Sonko ginnaaw nag ba président Macky Sall rek génne wax ci boobu boobule mbir kii di Ousmane Sonko nag daal di na ko tontu di ko xamal ne rek loolu mu def dafa mel ni ab aveu la boo xam ne rek day wane ne moom Macky Sall moo nekk ci ginnaaw boobule complot waaye moom Ousmane Sonko la moo laata kii di Macky Sall rek moo di du waxati dara loo xam ne rek sénégalais dinañ ko gëm ndaxte la nga xam ne rek moom la Macky Sall mën mooy rek. rek faagaagal adversaire politique yi ba dootuñ rek jàmmaarloo ak moom mouvement bi di frappe ak militant Pastef fi dinañ amal nag ab doxu ñaxtu rek tey ci àllarba bi bu ñu duppee marche nationale dictature résistant tey nag lañ koy amal rek fële ca place de l'obélisque coopération militaire Sénégal Gambie chef d'état-major des forces armées bu Gambie ba dina amal nag ab visite tey ci Dakar ngir rek liggéey boo xam ne da ko war a amal ci ñett fan ci noonu nag ki nga xam ne rek moo di général Yankuba Jammeh dina seeti militaire gambien yooyu nga xam ne rek dañoo nekk en formation fële ca centre d'entraînement national ba nekk ca Morolan Thiès. ñu daal di dem ak yéen fële ca Pikine tali bu lañ fa nemmeeku nag di lu nekkee rek ñaari way dencante yoo xam ne dañoo faatu ci anam yu doy waar ci seen néeg la leen faat ba tey rek kenn xamagu ko ci noonu nag ki nga xam ne moo di borom kër gi dafa nekkoon rek ab commerçant ki nga xam ne moo di ku jigéen ki nag nekkoon ab styliste ci noonu Equivox ñu doxantu ba foofu rek ci kanam ngir rek indi leen ay leeral ci boobule mbir waaye ñi nga xam ne nag ñoo di police ba rek ñu nga ñu ngay wëyal enquête ba ngir rek faram-fàcce li ni mel. ñu daal di dem ak yéen rek ci xibaaru bitim réew fële ca Guinée nag ginnaaw nag ba fa virus yi Ebola feeñaatee rek ñoom nag door nañ rek li nga xam ne moo di seen campagne de vaccination ne ni démb ci talaata bi ngir rek xeex li nga xam ne moo di virus bu bon boobu lay feeñ ca réewum Guinée. ñu dem ak yéen fële ca Niger ginnaaw nag bañ amalee rek ñaari ñaareelu pàcc élection présidentielle ya doon opposé Mohamed Bazoum ak kii di Mahman Ousmane kii nag di Mohamed Bazoum nekkoon rek ancien ministre de l'intérieur moo mujj jël rek boobule élection ginnaaw nag bam ko remporté rek ci 55 virgule 75 pour cent ci voix ya ci noonu nag ki ko xamle rek moo di euh, commission électorale nationale indépendante bu Niger. di leen jëfal yéen ñi doon teewlu xibaar ci Equivox TV fii la ñuy daal di yem ak yéen rek di leen jox dig daje ëllëg incha allah.